asalaamaaleykum mbokk yi ñoom mbégte di sant buur yàlla ba nu asamaan suuf di kaat fii seen jataay Sénégal ca kanam Sénégal ca kanam wala sunu réew mi ni ñu koy xalaatalee xooli ko gàllankoor si fànn yëpp jëm nañu ni saafara ngi réew mi suqali ko réew mi taxaw réew mi yegg ñun ñëpp fa ñu bëgg mu yegg Sénégal réew la moo xam sunu borom di ba nu asamaan suuf da koo beral loxo ndax ñu dara manqué wuñu te dara jombuñu lépp lu doomu aadama aajowoo si kaw suuf ngir jëm kanam sunu borom def na ko fi géej ay ay déeg suuf su nangu comme yi nekk ci biir suuf si comme yi nekk ci biir ndox mi suñu borom defal ñu li ëpp solo mooy nit yu am xel xel rek koom la saa nit jëlee xelam daas ko nàmm ko bës ko sotti ko xelli ko nasal ko jam ko xel moom du ko jural yiw yoo xam ne njottam mu ne si woon a yegg sax ndax ñun Sénégal xéewal yëpp ne fi waaye suñu réew mi ñun ba léegi bégguñ si bégguñu si dëkkuwaay lekk ak naan dem ak ñëw mbay napp sàmm wér-gu-yaram jàng ak liggéey mbedd yi jikko yooyu yëpp tey nu muy doxee gënaluñu lan moo tax ak lan mooy saafara si saa su ne dañu ami gan yoo xam dañu fiy dikk ngir indi si ay leeral tey ñu ngi si ànd ak Xaadim Diop moom si wàllum yàpp lay euh, yëngu dina ko leeral léegi ànd tamit ak Amadou Cissé Dia Amadou Cissé Dia moom bokk fii si ñun saa su ne dem di taataan si askan wi li mu tuddee dégg-dégg ñëw indil ñu ko Xaadim di la nuyu la dalal la yow it Amadou di la nuyu euh, aywa Xaadim. Euh, yow si yàpp nga yëngu. Hmm. oui yàpp laa yëngu. dañuy jaay yàpp. waaw. boucher nga. boucher la waaw chevillard. chevillard. Hmm. laa nekk depuis 15 ans. Hmm. fukki at ak ngay jaay yàpp xeetu yàpp bu ne jaay nga ko. yàpp nag. yàpp nag yàpp nag. yàpp xar doo ko jaay. yàpp xar non seeraas dafa am nu mu divisé dafa am ñoo xam ne ay chevillard lañ. ñoom ñooy gérer yàpp nag bi am xam ne tamit ñooy gérer mooy lan. chevillard mooy ki nga xam ne nii tey day jaay. ñi nekk ci mbedd mi di jaayaat. day jaay ñi nekk ci mbedd yi di jaay mooy grossiste bi quoi. mooy grossiste bi jaay détaillant ñi nga xam ñi ngi ci koñ bi. di jaay kilo yàpp. yow doo jaay ay kilo yàpp par benn kilo yow li ngay jaay mooy nag wala demi nag ak yooyu. voilà. Hmm. Euh, boucher ñaata métier ci am. boucher ah, métier yi bëri na parce que am na ñi nga xam ne tey ñoo jaay yàpp bi am na ñuy fees am na ñuy. defar abaa yi am na ñuy xoos yeel yi. Mhm. yooyu yëpp si xeetu boucherie lu bokk. bon léegi yow fukki at ak juróom yooyu euh, boobu ba léegi gis nga ci jaay yàpp bi gis nga muy jëm kanam. déedéet gisuma ko. yow fan nga jaay yàpp. man euh, Seras laa nekkoon. Mhm. depuis trois ans nag dama fa génne nekk ci benn projet. Ah. Mhm. projet wu lan. projet même pro même même même liggéey même liggéey bi la rek. jaay yàpp jaay yàpp waaw. maanaam da am sa këru ay bopp léegi. non non amoo sa commencé guñ ko. Ah, projet bi lan la wax. projet bi day wax si pour euh, changer méthode bi ñuy jaay yàpp. Ah. méthode bi ñuy jaay yàpp ñu changer ko. léegi euh, leeral ñu foofu Seras liggéey bi nu muy demee. bon Seras tey dafa nekk bërëb boo xam ne ni tey dañ fay dugal suñuy nag ñu ngi koy abattre ñu koy jaay ñuy fay ay droit mais tey mën naa la wax ne xëy na ñun sëriyaar yi fa nekk tey ñu ngi jàkkoonteeg ay jafe-jafe yoo xam ne ni tey bu la ko waxoon sax tey yow da ngay léegi Seras hmm. ñaata nag ñoo fay dugg bés bu nekk. bés bu nekk dina fa dugg minimum cent cinquante maximum quatre cent. Hmm, diggante euh, téeméer ak hmm. ba ñeenti téeméer si ay nag. bés bu nekk bés bu nekk sauf dimanche. sauf dimanche te nag yooyu fay dugg mooy yàpp wi ñuy lekk rek. ñun bi ñuy lekk waaw. léegi. Euh, yéen nag yi bu ñu ñëwee yéen da ngeen leen di jël mu am ñu leen rey après yéen da ngeen koy jënd. non ñun ñoo koy indi foofu yéen yaa ngi koy indi foofu. waaw seeraas reyal ko ñu fay seeraas. ñaata ngeen di fay par nag. ñu ngi fay kilo bu nekk 54 francs nag bi ni mu toll rek. ni mu toll rek noonu ngay fay. loolu ngay fay mhm. tey boo amee sa nag boo xam ni daanaka cent kilos lay def. 5400 lay doon. yow cent ngay fay bu ñu la rayalee ba pare. rayal fees ak yëpp. waaw euh, conservation bi. ñoom tam ñoo koy ñoo la koy denc. ñoo koy conserver mais tamit foofu tamit dafa bëri dafa am ay problème hmm. dafa am problème bon balaa ñu ñëw si problème yi léegi yéen chevillard yi yéen ñi nga xam ni jaay yàpp moom mooy seen métier ndax mu ngi leen di dundal ni ngeen ko bëggee. non non dund leen yow boo jaayee boo jë tey jëmee jënd benn nag si benn pël sama mbokk yi ñoom Samba Ka ak ñoom Gédel Ka nga jënd benn nag bu 100 kilos nga ñëw indi ko transporter ko. Euh, ñu wàcce ko dugal ko seeraas ray ko nga fay diggante transport bi wàcce bi ak ray bi ak conservation bi yëpp nag bi soo ko jaayaatee ñaata nga si am mën nga see am mën nga see perte hmm. te perte sax moo gën a jëf moo gën a yomb am si yow boo jëndee par exemple nagu cent kilos ñaata ngeen koy jëndee nagu cent kilos kay da dem estimer ko poids bi moom nga évaluer ko prix bi fi nekk en gros prix en gros ñaata ngeen koy jëndee. prix en gros ñu ngi koy jëndee ñun ñu ngi koy jaayee ñu ngi koy jëndee deux mille trois cent actuellement deux mille quatre cent. te yéen fi toll nii kilo yàpp nag muy jaar. da nga ko da nga koy jëndee deux mille trois cent wala deux mille quatre ñëw kilo yàpp nag. mu ngi ko jaayee lu gën a yées loolu sax. fi mu toll nii kilo yàpp nag lu muy jaar. instant bi ñu ngi koy jaayee deux mille quatre cent. deux mille quatre cent en tey man détaillant. su hmm. ma demee di jënd yàpp nag ñaata laa jëndee kilo. deux mille quatre cent. te yow chevillard yaa ngi jëndee tamit en gros 2400. wallaahi waaw loolu nu mu mënee ne. système bu yàqu. Ah, loolu kon loolu def si liggéey bi ba léegi. Ah, mais xamuñu lu dul lii. mais lii su xoliku leen si parce que li nga nettali loolu mooy jëndee dërëm jaaye dërëm. mais dafa am lu ko waral. lu ko waral. voilà tey Seras dafa war nekk benn marché boo xam ne nii tey dafa war a mel ni supermarché wala marché boo xam ne da nga dem jënd tuuti à l'aise. yow bu fekkee mës nga fa dem. gis nga désordre bi fa am. ah te serrage pagaille la. gis nga insalubrité bi nekk. serrage setul buntu abattoir ba daral bi. setul de. yaa ngi dégg tey balaa ngaa dugg serrage tey gis nga ñi lay topp te amuñu amuñu kilo yàpp. Hmm. yaa ngi dégg. ay rabatteur lañ ay rabatteur léegi boo duggee biir serrage ba def loolu lépp abaat fay abaat ba fay da ngay fay forcément nga ñëw chambre froide yi baaxul. chambre baaxul. baaxul conservation mënu ko conserver trois jours. day yàqu. ah mais day yàqu. instant bi à à à l'endroit même instant bi ñu toll nii nii nii nii tey ñaar chambre froide moo fa nekkoon. Hmm. instant bi benn mooy dox imagine toi capacité bu ñaar doon jël ñu entassé ko ci benn. lu affaire bi du seet bu baax. voilà moo lay war a ne yow yàpp bi boo ko jaayal suba suba suba ay jafe-jafe fekk la ci. te gaañ dañ koy contrôler bu yàqoo duñu nangu nga jaay ko. mais yàpp buy xeeñ noo koy jaay ni mu koy jënd. waaw yàpp de bu yàqoo xeeñ. te pourtant pourtant tey ñun ñu ngi jouer rôle bu am importance. non seen rôle kay moom mais léegi yéen. yéen ak waa Seras nan ngeen di liggéey lu tax ngeen toog seetaan noonu foofu euh, jumtuwaay yi baaxul salte na euh, désordre na pagaay na ba pare ngeen kon ne noonu di si liggéey. xam nga bu la yàlla natoo nga xaw xamoo lu dul benn métier te ña nekk ñu si bëri mun ñu man ko parce que ñu si bëri xëy na jànguñu seen jàng soriwul ba tax na ne xëy na yaay duñ jàng de léeg-léeg jànguñu loolu problème bu majeur bi. waaw léegi est-ce que yéen chevillards yi am ngeen kuréel goo xam ne moo leen waaw ñu ngi ci doon waxtaan. ba léegi boobu ba léegi. d'après problème mu problème bi passé nii. bon balaa ñu yegsi si problème bi yow chevillard yi Khadim Diop nan ngeen di nangoo ngeen nekk Seras Seras depuis kañ la. yàgg na trop man kay. boobu ba léegi amul benn kuréel boo xam ne moom moo ŋànk euh, chevillard yi di défendre seen ay intérêt loolu noonu koy nangoo yéen ah mais ma ñàkk organisation rek. chut bon euh, affaire yàpp bi moom xam nga affaire yàpp dafa dafa sérieux. sérieux mooy liy dugg suñu biir. mu luy dugg sa biir su baaxul moom daanaka sa gudd fan moom tey la nga ko ba noppi. te temps yi dégg nañ euh, yàpp mbaam boo xam ne daf fiy dugg mbaam mbaam sëf mm-hmm. yéen yaa ngi ko doon jaay. non non. mbaam bi yéen nan ngeen seet ay cheviard dañ si doon dañ si doon yëngu. benn si. ñi ñuy jàpp ay lan lañ. ay chinois lañ wax. non chinois yi dañ doon jënd ñoom mais am na ñu leen doon jaay. waaw xam nga tey mbir bu amee. te Seras dafa nekk benn entreprise boo xam ne peut-être dafay dugg rek war nañ xam tey Seras bu jëlee initiative di rey ay mbaam daa am fu mu ko war a teg parce que pack yi pàkk yi wala borom xaj yi dañ ko daan reyal ci sur commande mais tey bu ñu demee ba Seras di rey ay dizaine mbaam yaa ngi dégg loolu day xaw a doy waar parce que man li ma jaaxal mooy amul benn kayit bu yor fi mu ne nii Seras war am na droit rey ay dizaine mbaam. Seras ñaata mbaam lañu doon rey ñoom. ay 3 ba 4 maximum 5. day jamono yi ay ñaar lañ doon rey. ay dizaine lañ doon rey. ngeen ko gis. ah mais luñ ci mën Seras moo jël responsabilité rey. mbaa bi mais yéen ngeen gis mbaa bi. mbaa bi ni dugg ñu leen di gis ñu ngi leen di gis. ñu leen di conserver fi ngeen di denc seen i nag. non non non non daaw ñu leen conserver dafa am conteneur bu fa nekkoon si conteneur boobu la leen doon dugal. kon mbaam yooyu yëpp Seras lañ leen reyee. Seras lañ leen reyee Seras lañ leen reyee. est-ce que waaye ñun suñu réew mi lii <laughs> ñun. waaw léegi man damay laaj. Hmm. ban kayit mooy certifié que ni Sénégal am na droit exporter yàpp mbaam. amul. ban kayit mooy certifié que ni Sénégal amul kayit boobu amul dizaine de mbaam. kayit boobu amul ma benn a ànd ak sama benn xarit bi ma a remarqué. Hmm. ñu jéggi raay ma gis mbaam yi bëri trop ma laaj ko ne la mu ne mooy mbaam yi ñuy rey séeraas ma ne ko mais mbaam yi yëpp mu ne ma waaw ma ne ko waaw mais ñun Sénégal suñu baykat yi su 75 pour cent 25 pour cent rek ñoo ci am moyen am ay tracteurs am ay fas 75 pour cent rek mbaam la ñuy béyee. mais mbaam yi bu na rey léegi léegi domaine boobu ni demee mënuma ah xam mais lii nii nii nii nii nii tey. boo leen chevillards yi est que jëm ngeen dem gëstu laaj waa Seras lu tax mbaam yi ñu leen fii rey. waaw ñoom bi ñu waxee ay yow seetaan nga ko en journal ñoom jox nañ joxe nañ seen explication mais pas du tout mais man problème bi mu amee automatiquement bi ñu ko bi ñu ko constaté rek parce que loolu fraude la foofu. te ba léegi kenn dàqul kenn. kenn dàqul kenn. mu ngi mel ni dara xewul. kenn dàqul kenn. mu ngi mel ni dara xewul. dara xewul boo euh, léegi affaire mais yéen mbaam yi tamit euh, yéen parce que 2STV wane nañ fi ay image ñu jàpp ay nit ñuy fees ay mbaam mbaam yooyu ñu ko doon jaay. Mhm. yéen xamoon ngeen circuit boobu xamoon ngeen ko. non loolu loolu abattage clandestin bi la woon ci àll bi ñooñu tey ñoom peut-être loolu ñu xam. imagine toi nit ki nga xam ne detail dafa xëy màgg ci dara am ci jabar am ci doom kooku loolu lay xam loolu rek lay xam. lu lu bon loolu mais mais kenn màggul si am jabar am doom si jaayi mbaam. waaw mais pourtant dafa am parce que ñoom dafa am ay techniques ñu koy defee man def naa enquête yooyu am na technique ñu koy defee ñoom dañuy jël yàpp mbaam bi tey 15 kilo jël 10 kilos yu yàpp nag jaxase ko dagg ay dagg yu toll nii jaay ko les petites restauratrices te damay dalal xel Sénégalais yi si hmm. lenn. yàpp mbaam bi nekkul lu ñuy exposé di ko teg si table di ko jaay. Hmm. déedéet dañ koy dagg ay dagg yu sew. Hmm. boole jaxase ko yàpp nag jaay ko ay petit restauratrice ba si mayga yeeg yooyu noonu. léegi tey kon ay mayga ak yooyu wala froxcaay ñoom. genre xeet yooyu rek ñu bëgg lu yomb yi mais peut-être nag enquête si yomb na parce que mbaam yooyu ñu ko fii indi bu ñu waxee ñu ngi koy jox ñooñu ñu koy jox di ko ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy traité ñoom dañu wax ne national lañ koy jaay. Amour Cissé Dia yow. Euh, dëgg-dëgg si nga yëngu saa su ne da ngay ñëw indi benn kàddu dem si askan wi taataan seen xalaat si kàddu googu tey kàddu gi lu mu doon. tey mag mën naa bàyyi ci réew. mag mën naa bàyyi ci réew. Hmm? Ah, mais est-ce que mag yëpp la aussi ñu xool ba xam kàddu gi nan la ko tey moom daf ma euh, laaj ñu ko dégg mais dama dem jël benn exemple di benn mag boo xam dafa yëngu ci ay tool fu mu wax ñu jaar jaaram daal parce que mag mën naa bàyyi ci réew dañ ciy soxla mag moo xam ni. soit moom mën ñu wax jaar-jaar boo xam day motiver jeunes yi. Mhm. wala mu wax ñu histoire wala mu mun ñoo di ñu dolli wala ñu mu mu nekk mag moo xam ne repère référence boo xam ne boo xoolee ni muy dundee rek yow di nga bëgg boo màggee nga mel ni moom. Hmm. moo tax ñu indi woon. yow nee nga mag mat naa bàyyi cim réew loolu coach Bano Fall la ko waxoon waaye nee nga du du mag ñëpp. ah du mag ñëpp parce que monsieur Tounkara am na mag ñoo xam ne. seen doxalin baaxul quoi bëri na mais bon lépp tout nul n'est parfait lépp amul lan loo xam ne unanimité unanimité mais li am solo mooy mag mi tax mag mi tax Kocc Barma di wax lañ bëgg ñun véhiculer fii. est-ce que tey ñun xam nga boo jëlee Sénégal. Mm-hmm. suñuy mag léegi bëreetuñu. waaw soo jëlee euh, téeméeri sénégalais ñett rek ñoo ci am lu ëpp juróom-benn fukki at ak juróom. 3 pour cent population bi ñoo am plus de 65 ans. Mm-hmm. mu kon mag ñi bëreetul ndaw ñuy ëpp léegi suñu mag ñooñu tey ndax ñoom ñu ngi ñuy leeral yoon problème boobu dafa am parce que mag ñooñu bon façon façon leeral bi sax moo moo moo doy wax parce que en général fii ñi ñiy wax ñi ëpp ci en général ci télé lañ leen a gis ñu war a jàng ci ñoom mais est-ce que mag ñi ñi ñu war a dem toog ak ñoom ñu wax ñu est-ce que ñooñu ñu ngi wax ak ñoom. non mais tey léegi xale yi dootuñu dem si mag yi pour taataan pour jàng. xam nga duñ fa dem mais est-ce que tey télévision yi nañ fa gis kay koo xam ne tey ay émissions yoo xam ne dañu fa gis benn mag jox ay ay repères wala mënuñ jox ay di ñu jox ay jaar-jaar wala mënuñ jox référence yoo xam ne. gisoo loolu. bon je xaw ma mais seetlu ko daal mu bari fii. pour man foofu moo yomb parce que comme xam nga mag ñi bëriwul. Hmm. comme que bëriwul. Hmm. mooy loo xam ni Sénégal yëpp peut-être chaque jour moom la ñuy xool mais foofu la ñu waroon a jaaree pour ñun suñu mag ñi nga xam ne tey mën nañ parce que tey loolu li ëpp solo mooy mag ba naa jur yëpp mooy mag moo xam ne tey mën na ñëw taxaw waxal la jaar-jaaram yëpp nga xam ne kii kat fi mu jaar ah metti na comme man mii xale war naa jéemat préparé wu ci loolu. mu nekk exemple la mu nekk exemple quoi tey ñun bon dañu dégg fii ay mag euh, yoo xam ne. waaw ah. léeg-léeg bon dégg nañ président Wade tam président Macky Sall dem président Moustapha Niass saaga jeunes yi nekk seen parti yi dafa xaw a eh, kéemaane. c'est parce que fi ñu orienté la mooy politique bi mais muy Tounkara xam nga ne réew mi am na ñeneen ñoo xam ne xamuñu luy politique te ñu ngi yëngu ci loo xam ni bu leen demoon gëstu ñu am beneen xeetu mag. Hmm. te ñu ngi toog ci béréb mais peut-être xam nga am na ñoo xam ne mag ñoo xam ñu déplacé pour ñu ci population mais euh, ñun ñoo war a def effort. les télévisions ak yenn kuréel dem fekk parce que man déjà rek paa bi ma dem fekk Malika ci toolam mu jox ma histoire wax ma lu bëri dafa nekk koo xam ni peut-être genre ñu ñooñu soxla parce li mu wax ci suuf ak tool rek ak fi mu commencé ba ak fi mu agsi rek dafa dafa intéressant yaa ngi dégg mooy vidéo bi ñu ma seetaan après ça veut que ñun dañu war a euh, loolu dañ ko war a liggéey mm. parce que waruñu ñu ñu jël rek joxuñu ay politiciens ñoom peut-être ñoom li ñuy doxal seen intérêt personnel la boo gisee xasante beeg waxante lu ñaaw li so seen intérêt personnel la quoi mais tey mag mi nga xam ni li muy def seet ci dara da koy def te yàlla tax wala ki nga xam ne day dégager ci ni moom lu nekk ci moom te yàlla tax kooku dafa jar ñu dem togg ak moom muy wax mu wax ak wax ak jeunes yi. Euh, foofu am na ñaari jàngat bu bu njëkk mooy mag ñi ñoom dañuy bàyyi dañu war a bàyyi xel ne que ñoom dañu war a niital mhm. euh, ndaw ñi te niit lu si jiitu moom mooy euh, doxalin. li ñi gis ne que sa doxalin. Mhm. la. ba pare su fekkee ne mag ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci réew mi tey seen bopp rek la ñuy xool xoolatuñu ñoom euh, xale yi nan lañ leen war a niitalee loolu dafay nekk njaaxum moo tax ku mel ni président Wade yooyu tam président Macky dëmm yooyu yooyu dafa yàq dafa yàq parce que day dem ba xale yi jàpp ne que loolu mën na nekk ñu demee ba tey mag ñi ay président di wax di waxeet loolu tamit dafa yàq euh, dafa yàq xale yi seen gis-gis parce que dañuy jàpp ne que ah comme sama maam wax na ko kay ah, man mun naa ko wax comme président wax na ko kay man euh, mun naa ko wax benn beneen mooy ndaw ñi ñoom dañu war a xool mag ñi nga xam dañoo am ñam mhm. ñuy dem si ñoom di taataan di jàng euh, lu ko may rek lu bëri dafay perte moom la Amadou Hampâté Bâ doon wax naan ñun fii si Afrique mag mu am ñam mag moom ko ci baar ma di wax mhm. nga xam ne mat naa bàyyi cim réew mu ne mag moomu su faatoo daa mel ni benn bibliothèque boo xam ne dafa tàkk livre yi si woon yëpp daal di euh, jeex xaadim bon xaadim tey yow li la fi indi li nga bëgg leeral lan la li ma fi indi mooy xëy na tey problème bi bëri na parce que yaa ngi doon dégg fii problème yàpp mbaam beeg yooyu yëpp te cheviar yi nekk seeraas yi ñuy jàkkoonteel te ñoom tamit ñu ngi joué rôle bu am importance parce que imagine tey ñoom ñu toogoon une semaine sans abattre non seen rôle kay moom kenn kenn day xaw a doy waar. léegi yow solution problème yooyu yëpp lan la. ñooñu nag tey nguur gi de par son ministère dana war a assister. assister leen naka. assister leen mooy seen sàmm fraat yooyu noonu ñu jéem a xool ñu leen ki ñu leen di jàppale. dafa am ministère de l'élevage tamit vraiment foofu sama yaayoo fa nekk Aminata ngi Ndiaye waaye nag euh, il faut tamit. chambre froide du seeraas yi baax parce que <laughs> loolu moom moom jaaxul benn chambre froide rek. et puis ko war a formaliser. tey nag bi ñuy rey war nañ mën a xam ban jour lañ ko rey yaa ngi dégg. loolu kenn du ko xam. yooyu yëpp yooyu yëpp moom xanaa bu weesoo kayit bi ñu lay jox bi ngay fayee bi ngay fayee. waaw bu weesoo loolu mooy loolu. ah kayit boobu kayit ko war na mën a am boo xam ne dina mën a ba ci kiy jaay ci taab bi bu ko fekkee war na mën a joxe ni nag bi diw moo ko rey numéro moo ko rey jour sàngam lañ ko rey. non mais loolu kon dañuy ni ñuy jaayee yàpp si mbedd yi xam nga normalul moom. non parce que yàpp boo xam ñu ngi ko jël teg noonu poussière bi ngelaw li weñ yi euh, microbe yi salte yi booy booy dox booy booy tukki di dem ay euh, ay euh, kilomètre cinquante fekk ñu ñu lonk noonu yàpp yi mais sa yaram day daw sax waaw mais loolu xam nga tey secteur bi moo amul benn avancement secteur bi nekk moo amul benn avancement man de yàpp bi léegi moom da yàpp moom da nga koy lekk sax sa xel di parce que yàpp bi fan la jógee ki ngeen xamul waaw mais tamit xam nga tey. loolu ñu ñuy jaay te xam nga affaire bi setul yaa ngi yow yaa ngi nekk si wetu suuf suuf lal ko lal yàpp si suuf di ko jaay. dëgg la xam nga tey xam nga tey loolu moo motivé man may liggéey si benn projet depuis trois ans mooy projet bi ma doon wax sànq Sénégal bi moom day ñëw changé système bi formaliser ko. léegi système bi dafa informel système bi dafa pagaille système bi dafa désordre système bi dafa saleté léegi lan mooy solution yi. d'accord bon. projet bi nag mi ngi concerné dafa concerné yi ministère ministère de l'élevage première ministère du commerce ministère de l'emploi ak ministère de l'environnement da concerné. waaye projet parce que de nos jours. Hmm. jaay yàpp comme ni nga waxee ni ci ay table. ah loolu am de. dañ ko war a jaay ci ay point de vente yu prestigieux yoo xam ni day respecter normes d'hygiène yëpp. mais ay belle viande yooyu loolu lañ fi commencé woon. waaw loolu lañ fi commencé woon peut-être xëy na problème xalaat sax lu raw seen projet bi ñaata xaalis la. bëri na trop sax lii moom wax dëgg yàlla bu ci état jàppul moom dina xaw a doy parce que affaire nationale la. ñaata ñaata xaalis la projet bi. projet bi li ko li ko dina jege milliard moom. foo leen ko financé. loolu doy waar. ah mu doy waar. Ah, mais foo jaar. soo tët mais yow projet bi tëgg ngeen ko ba noppi. ba mu leer. mais doo leen dem ut ay partenaires état bi bokk si. ñoom ministère de l'élevage ñu leen ñun am nañ am nañ xalaat yéen indi leen xaalis wala yow indil lii yow indil la la ñu liggéeyandoo ko noonu lay demee. waaw xam nga dëkk bi tey boo fi yore projet moom def nga tant que réalisé wul moom duñu jàpp ni lii. c'est faisable non non non tey non <clears throat> xam nga affaire yi mm-hmm. xel koom la. sa xel da koy utiliser. Mm-hmm. état bi tey soxla na yow li ngay wax nii soxla boobu moom nga leen di fajal dafa mel ni tey ku ñëw indi. projet wu man dama am université bu mag boo xam dama ko bëgg a def état bi daf ko soxla daf la naan bismillah léegi yow mun nga ñëw ne ko léegi nag yow indil sa participation pour ñu defandoo ko. Euh, Tunkara li ma la mën a xamal mooy projet bi dafay yaatu yaatu yaatu ba nga xam ne tey projet bi yemul si jaay yàpp day jaay produit vivrier agricole. et ñu nekk ñu fii pour tagg projet bi xam nga nan lañ fi nekkee. projet bi nan la ñuy def ba mu baax ba tey ñiy jaay yàpp suñu réew mi nga xam ni jaaduwul baaxul. santul yàlla mu dañ fi te comme am ngeen projet bu mel noonu da ngeen dem gis ñi nga xam ne yéen amu leen xaalis am na ñoo xam ne am nañ xaalis yéen am ngeen xalaat am ngeen euh, mbébét ngeen dem ngeen bokk ak ñooñu waa ministère de l'élevage wan nga leen projet bi. mës naa fa dem benn yoon. ministre bi mës nga toog ak moom. mës ma toog ak moom léegi ministre bi dañuy liggéeyanti nga ñëw toog ak madame la ministre ne ko sunu projet ngi nii li ñu bëgg mooy ministère de l'élevage ñu ñëw liggéeyandoo ko parce que bokk tamit. am cinquante pour cent de dërëm moo gën 100 pour cent de zéro de ñëw liggéey ak ñoom ñoom am nañ expertise am nañ xalaat am nañ xam-xam ñu jël seen dërëm seen ñaar dërëm yeneen privé yi bu ñu ko gisee itam mën na leen intéressé affaire parce que xaarim naa la wax dara de gis nga ñun nu ñuy ni ñuy lekkee yàpp nii si si réew mi normal de. monsieur Bala monsieur Bala te naa la wax benn affaire problème mu mbaam mi d'après enquête yi ñu defoon <coughs> ñun teeloon nañu ko gis. Hmm. bu ñu demee ba ci kanam tamit di nga gisaat beneen problème bu bu fi comme la boo xoolee depuis trois ans yi ne yàpp dafa cher. jur gi dafa cher. ñi ngi nekk ñi ni ngànk ñi ni ngànk élevage bi. de ce tuuti dañu commencé yuux chevière yooyu ma lay wax noonu biir serras suñu amatul conservation bu baax. Hmm. te est ce que ñoom dinañ jëlati seen alal di ko dugal ci ay nag bay bay banaan dañuy xalaat di ko jaay. léegi léegi yàpp xaj yi nag. ah yàpp xaj yeeg yàpp mbaa bi daal ñooyam ñu koy def daal boo xam ne boo commencé def lu bon lu bon la ngay xam. am na ñoo xam ne ñoom si loolu rek lañuy yëngu. waaw mais mooy ñu ngi gis nii gendarmerie di jàpp. ñooñu ñu jàpp nañ leen est-ce du mën a jeex. yoo xam parce que abattage cla abattage nekkul luy gaaw a jeex biir Sénégal dama la wax lu leer nañ <coughs> nekkul luy gaaw a jeex biir Sénégal. mais ñooñu tamit saay nañ. boo xoolee Sénégal feet yi dafa bëri tey lu mel ne tam xarit séerase mënu couvrir askan bi yëpp si yàpp. Hmm. léegi da ngay gis ñuy rey si jàkka yi da gis ñuy rey si koñ yi. mais loolu tey séerase moo waroon gën a avancer gën a gën a ubbeeku def ay abattoir communal yoo xam ne si commune yi lay nekk ku war a rey nga dem foofu rey bu la fekkee ci mbedd bi ngay rey nee na la loo xam ne moo foofu rey. ñu ah, réew yu organisé de kenn ñëwewul rey sa kër wala ñe rey si ay mbedd. mën nga xoolal Touba. te màggal Touba bu bu jotee nit ñi fu ne dañuy reyee. te tey doo xam nag bi feebar doo xam yàpp bu baax. déedéet te yàpp bu nekk la lay jaay. te te xoolal nga nga rey nag ba pare jël euh, abaay jël deret bi yëpp gas noonu sa buntu kër rek bàyyi noonu mais loolu yow. loolu hôpit euh, maanaam cimetière feebar nga indi sa kër. loolu problème insalubrité la mooy problème. waaw ku setul mën na gudd fan. déedéet. xam nga affaire yàpp affaire rey affaire deret loolu affaire dund la ak dee boo ko deful bu baax doo mën a gudd fan. ah mais ñoo ko léegi nag euh, xaalim yow lan ngay jeexale man li may jeexalee mooy que ni damay xamal damay xamal nit ñi ne projet bi nii. 100 hmm. pour cent local la cent pour cent innovation la. non no non xaarim loolu doo ko defee nii c'est-à-dire nit ñi amuñu lu ñuy xam ci sa projet. yow à l'état de projet nga nekk. yow li nga soxla mooy nga ñëw ànd ak ñoo xam ne ñoom da ngeen di jëmmal da ngeen di ànd jëmmal projet bi ñun loolu rek lañ soxla. d'accord te loolu tey yow ñàkk fi am na ñoo xam ne tey ministère bi loolu intéressé na ministère yi nga wax ni yëpp intéressé na leen ministère de l'emploi ñooñu jëlee des jeunes intéressé na leen euh, et puis am na ñàkkul ay privé yoo xam ne mën nañ ñëw investir ngeen liggéeyandoo. ah mais loolu bu amee. bu amee dina nekk lu lu luy baax si dëkk bi dina nekk. non loolu raw na baax sax parce que ñun xaadim dañ koy bàyyiwuñu si xel mais gis nga xam nga yàlla léeg-léeg daf lay indil dara pour yee la affaire mbaam yi yàlla daf ñuy yee ne ñun ni ñuy lekkee yàpp baaxul. waaw xam nga tey nit ñi nag duñ ko comprendre noonu. ah et que Sénégal benn problème la ñu am problème suivi tey mbaam yi dégg nga ko. ñu koy kaas di ko wax. ñaari fan ñu ñaari fan ñu baax. suba lu gën a pire loolu ñëwaat xam nga sànq sànq maanaam la naa problème mbaam yi que gisaat naa beneen problème bi ñëw. a problème bi ñëw mooy tey cheviard yi nga xam ne tey seen chambre froide bee baaxul et que yàpp nag bi ni muy commencé chéré ñetti at yi commencé jóge si 1700 ñëw plus si 2400 loolu bu ko continuer yow di nga di nga di nga lekkati yàpp. ah bu yàggee du ma lekk yàpp. keneen dina lekk yàpp. xam nga dem kër Cissé Dia Dior. waaw ñooñu ne ñooñu ne bu ñu xëyee tey banque seen loxo léegi réew mi kuy kuy kuy jaay yàpp. kenn du jaay yàpp bu ko defee yàpp di nekk 5000. voilà mi ngi noonu. parce que chevillard yi tamit gisuñu si seen bopp euh, amuñu fu ñu denc yàpp bi mais su ko defee bon sama yaay Aminata Mbengue Ndiaye maa ngi ko si woo vraiment euh, waa ministère bi nañ ñëw fii leeral si addu si yooyu euh, moom it seeraas vraiment ñu ñu lijjanti ko parce que tamit am na loo xam ne jaaduwul yàpp mbaam bi gis nañ ko fii mbaam mbaam sëf si problème bi ne ne këtt ne jonn mais ba léegi kenn sanctionné wul kenn kenn daaxul kenn mel na ni dara xewul woon loolu moom. mooy rek euh, daanaka euh, ki nga xam ne mi ngi def ñaawteef ñu bàyyi ko noonu si ñaawteef mu kon ne bu teyee ñaawteef bii la def bu ëllëgee mu def beneen bu gën a garaaw. te daan yi dafa war a sévère. non non mais lii crime gis nga lii bu doon ay Chine Chine. Hmm. mais yow kenn waxatul sa wax. mbaa du peine de mort ngay jël. moom ngay jël bi ñu ci jàppee affaire euh, les frelaté boobu meew boobu nga xam ni jaarul woon directeur du commerce moom moo signé woon affaire yi gars yi joxoon ko xaalis si suuf bi ñu ko jàppee dañ ko rey carrément. parce que am na loo xam ni affaire santé publique la affaire dund la affaire dee su fekkee yow sa bopp yow sa personne rek moo la gënal askan wi yëpp loolu tax si armée suñu la jàppee nga daw nga déserté dañ lay rey lu tax parce que yow sa bopp nga jël jiital ko si kaw askan wi yëpp loolu kenn kenn ko nangu fenn. si déjà tey sa message lan la. Tounkara mooy euh, communication gis nga mag ñi dañu am benn fort muy ci communication balaa nga xam nga dem tey ay ngénte ay mariage nga gis mag mu jël parole di wax ci temps bu ndaw rek danga nga fay jàng benn affaire mu éduquer la mu joxaale la ay messages yoo xam ni yow da koy da koy jëfandikoo quoi ça veut dire que loolu seen fort la moo et ñun jeunes yi tamit. ñi nga xam ni nekk guñ ay mag qui se prépare parce que tey booy dund war nga xalaat ni bu ma màggee nekk mag li ma nekk di ko dund nii est-ce que buñ ma woowee na ma nettali naa dinaa am honneur nettali ko. Hmm. ça veut dire que war nga defaraat sa toogaay quoi. Mhm. parce que nit boo nee ma ñu la kaay wax ñu sa jaar jaar. Mhm. war nga am euh, fierté wu nga ni man fii laa jaar. Mhm. ça veut boo nekkee ci bon xalaatal ni ëllëg bul nekk mag moo xam ne dañuy xaar ci yow dara. Hmm. donc ñu loolu lu ñu koy def parce que boo nekkee ci lu ñàkk fayda wala ñàkk fulu te boo nekkee mag après mag bi isolé ngay nekk. léeg-léeg li ngay doon euh, ndaw moom ngay màggee te li ngay màggee boo moytul moom ngay màggetee te li ngay màggetee soo moytul moom ngay faatoo. waaw aywa loo jeexale si. loo jeexale booy ñu fexe suñu mag ñi fi defee ñu jéem di jël ci ñoom ay ay wax yoo xam ne daf ñuy jëriñ ñi nga xam ni tamit du sax mun nañ bañ a wax sax mais xool ci mag moo xam ne référence la xool ni muy dundee nga jéem a roy ci moom. Hmm. parce que dafa am mag ñoo xam ne muy dungara da nga leen di xoolee bëgg. dëgg la benn ñu ngi gérer seen famille. ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy doxalee ak seen i soxna. ak seen i doom ay mag yu yiw mag ñu am fulla yoo xam ni tey boo boo leen xoolee da ngay kontaan quoi yooyu dafa am importance ci dëkk. loolu euh, lu wér la euh, ñi nga xam ne ñu ngi dund ak seeni maam. Mhm. Euh, ñooñu nañ fonk seen maam te di taataan si ñoom xam-xam ak jaar-jaar. Mhm. ndax dañ koy wax ne gone moom day am doole waaye mag moom moom moo am jaar-jaar moom moo am xel bu gën a yaatu te boo jëlee sa doolewu gone nga. àndale ko ak euh, ay dénkaane mm-hmm. ak ay jàngal ay jàngalewu mag léegi dangay ngay gën a mën a gën a mën a taxaw ñu bàyyi leen léegi ak euh, élément bi nga xam ni Cissé Dia dem na taataan ko muy dëgg-dëgg si mag mat naa bàyyi cim réew Amadou Matar jiite laa tudd ñu may wax Baye Ngouda waaw papa dañoo bëggoon laajte ci wàllum tool loo ñu ci mën a wax li ma leen ci mën a wax moo di tool moom lu am solo la lu am a am njariñ la mu ngi may jariñ mu ngi may jariñ bu baax a baax a baax a baax 1952 laa dugg école génn 1957 bi ma génnee 1957 sama baay téye ma ci tool yi ma nekk ci tool yi ak moom ba 1964 ma jóge fi incorporé dem armée bi ma jógee armée dama fa toog durée légale rek laa fa def xam ni gisuma fi lu tane tool yi ma bàyyi ko fa ñëw ci tool yi njariñ au contraire laa ci gis xas nañu ma ci wax nañu ma ci lu ne waaye mujj nañu daw topp ci ma à l'époque mos na maa nekk commerçant importateur exportateur Senghor moo ma wuteloon carte import export boobu ministre ba la ñuy wax Babacar Ba moo fi nekkoon ministre des finances kooku moom ma wuteloon carte boobu import sport bi ma yore woon ko yore woon naa dix-huit magasins rue Sandiniéry waaye jànguma mënuma ko gérer ndax booba temps CEP rek laa am. magasin yooyu avant tool yi la wala ci avant tool la avant tool yi bi ma ko bàyyee laa ñëw nag ci tool yi bi ma ñëwee ci tool yi moom lu ci jóge rëccu ma Sénégal lu bëri si ay ay dañuy jéggaani ay ceeb ak yenn yu bëri dañ koy jéggaani mais lu lan moo waral koon Sénégal ak suy nu mu bëree suuf nangu lu war loolu. li ko waral li ci ëpp moo di dañoo joxul mbaxanami boroom solo ñu mbaxanami boroom dañuy dem ci ñi nga xamante ne son des fonctionnaires ñu nekk fële ci biir Dakar nekk ci seen ci seen i ñu toog fa ñu di leen jol ay milliards bu ñu ñëwee ci nun paysans yi nga xamante ni des pauvre type lañu ñuy yëkkati ay mille francs di nu jox man dama daan exposé ji ca foire ba ñu di ko gis foofa sama tur siiwee foofa la sama tur siiwee bala nga maa xam dëgg-dëgg demal Nantes mbaa nga dem Bordeaux wala nga dem Marseille wala nga dem lion mbaa nga dem Monaco damay béy di déglu lu ma di ko envoyé une semaine yu nekk chaque jeudi bu ma demee réunion chambre de commerce euh, benn client jox ma billet ni ma euh, ñëwal seeti ma on je veux faire des millions avec bu li ma leen di dolli daal moo di ñu góorgóorlu jàpp ci mbéy mi xale yi la wuti bitim réew a ngi fii coono ba ñu ba ñu fay daj billaahi duñu ko daj fii te dinañu gën a avantagé fuuf mbokk yi tey suñu taxaw seet ñu ngi si ànd ak euh, Nana dara Nana saa su ne dafay ñëw li ñu defal ay jàngat ba pare it di joxe dénkaane si suñu dund nan la ñuy fexee ba mu gën a yeewoon Nana la nuyu la la ziar. maa ngi lay nuyu Tounkara di nuyu téléspectateurs aywa Nana tey si loo yëngu. Euh, Tounkara tey dama bëggoon waxtaanee lu ñuy wax euh, insalubrité ci marché yi. maanaam daal ñàkk cet voilà ñàkk set bi nekk ci marché yi. voilà di ñoo seetlu ni jamono ji léegi kii bi ñëw nawet bi ñëw. moo tax ma ne nañ naaj taxaw def ci benn taxaw seetlu bu ndaw rek donc euh, marché bu nawet jotee kenn du fa mën a dem déjà dafay salte ci foo xam ne ne dañ fay jaay li nga xam ne moom la nit di dundee inondation yi da ngay gis ki nga xam ne ne mi ngi teg ay légumes moom fi mu teg ay légumes moom nga gis fa mu nawet mu taa carrément ndox mi ne fa carrément te pourtant daf fay continuer di jaay man marchand yi du ma leen blâmer parce que tout simplement amuñu solution loolu la ñu am pour dundal seen njaboot donc moo tax ma ne tey xaar ma taxaw tuuti ci marché yi déjà damay commencer ci marché Sandaga marché Sandaga Tounkara ñu ngi ko tabax en 1933. tey boo gisee bâtiment bi dafa dem ba boo xoolee da nga naan lii maadu mbàbbeek suñu kaw est-ce que tey jotul Tounkara état bi jug ne carrément marché bi dañ koy éliminer bii Dakar. carrément loolu nañ ko wax. mais ba tey Pape bi nekkee maire ne woon na dans moo xoolal mu ne dans euh, deux semaines. marché bi ñu déggee pire. mais loolu mun nekk munoo ne da ngay déggee pire marché bi te alors que ni marchand ambulant yi da ngay déggee marché bi si boppam la mais est ce defee nañ ko tey boo demee Sandaga da nga ko naa ne dans euh, Sandaga danger public la jamono ji képp ku nga xam ne yaa ngi fay doxantu sa bakkan mi ngi ci xottu nen parce que tout simplement dafa wóoratu. gis nga toit bi foofu lënd yi nag gis nga ni toll. fissure yoo xam ne ne da maara day musi donc loolu noonu ñu bàyyi noonu buy taw nii la ndox yi duggee yi dañuy jaay ci kawam feelu courant yeeg yëpp mun ni am benn euh, kii installation euh, euh, kii installation boo xam ne ne dafa désordonné carrément kii bu branché fii kii branché fii yoo xam ne ne da lay leer ne ne incendie yu fay am yëpp loolu moo koy gën a occasionné day day yomb voilà loolu moo koy gën a donc may laajte rek état moom lan lay xaar Tunkara parce que marché Sandaga moom ala kuli aali moom dafa war a effacé wu jamono ji bon ne naa du marché Sandaga rek moo war a effacé non ci laay commencé kay fa laa commencé réew mi amul benn marché bu nekk aux normes. xam nga li tax parce que marché yi fi nekk yëpp temps colon yi la colon yee ko fi defoon tey am na benn marché bu nekk fële Saint-Louis euh, marché marché boobu euh, tënji euh, tànji génn la tudd d'après li ñu ma wax nee nañ ma marché bi boo fa demee moo sax gën a piir marché Sandaga donc marché boobu aussi lan lay xaar boobu tamit colon yi ñoo ko fa defoon lan lay xaar pour jóge fa Tunkara il paraît que ni état bi Sandaga mel c'est encore. moo gën a garaaw boobu noonu te bu tawee tamit nit ñi duñu ñu xam fan la ñuy jaar marchand yi newuñu ci lu leen neex bu ñu sañoon noonu du demee noonu mais amuñu solution ils sont obligés ñu toog foofu noonu. commencé bon euh, xam nga affaire marché ñun Sénégal nanaa keroog dama dem France dem benn marché kontaan tubaab yaa ngi organiser seen marché marché samedi la nag marché baa ngi set ma ne lii am na si àdduna beem bien te du supermarché de. Mm-hmm. marché nii rek. Euh, gis nga affaire marché nana affaire dund la ak affaire dee mhm. lu tax parce que affaire biir la xam nga liy dugg si sa biir bii moom mooy tax léeg nga gudd fan wala nga gàtt fan sa biir boo si dugal lu setut lu lu lu maanaam lu yiwul lu baaxul doo mën a gudd fan te ñun marché dafa bokk ci li ñu gën a sàggane faalewuñu sax marché yi amul tey Sénégal benn marché muy Sandaga muy Tilène muy wakaam muy ngelaw muy mbabas muy HLM euh, euh, mhm. amul benn marché bu jaar yoon ci réew mi te marché yi li gën a garaaw na naa mooy mhm. marché yi jaaruñu yoon mais maire yi moom la ñuy moom la ñuy dundee déggoo sànq dama wax a benn euh, taximan ba may ñëw léegi ma indi mu ne ma koy wax ci li man la wax tey comme que xalaat moom du doy mu ne ma soxna si maire yi ci boppam ñoom ñoo yeb marchand ambulant yi wala ma mu mun naa ne marchan yi rek parce que dañ la ne dañ lay jox kayit nee la yow ba euh, na nga jóge fii nii jox nañ la délai bi ba pare teg saay boo ñëwee ñoom di la laaj ci juuti mais loolu est-ce que dëgg la tamit loolu du dëgg du yoon yow mënoo di laaj nit ki juuti mu koy joxe après nga ne ko da nga fiy jógee mu nekk lu doo xam ne dafa doy waa Tounkara mm-hmm. tey marché yi dañ ko respecté wul boo dem am na garage ci biir est-ce que loolu yoon xam ne mook tata yi dañ koy buuxante marché boo xam ne day am garage yu taxi clando ci biir lépp ci biir benn marché des nga gis marché yoo xam ne dafay am ñoo xam ne dañuy jaay restaurant mais pour man ak nu lekk dafa war war a set warul war a nekk ci ay wetu mbalit ci ay wetu garage yu taxi ci ay wetu légume wala yàpp yoo xam ne ñorogul ay mécanicien di nekk à côté marché boo duggee bon bëri na tey jii ñi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew bu ñu ñëwee fii du ñu duggee ci suñu marché dañuy préférer dem ci ay supermarché ah, wala genre affaire parce que tout simplement ñoom xamuñu loolu ñun na dañ koo tàmm tàmm ba yaakaar ne ni léegi c'est normal alors ko ni loolu noonu du yoon euh, Nana da nga wax euh, lu solo gis nga euh, wax naa ko fi waxaat ko réew moo dem nit ñi gudd fan ci réew moom mel ni Japon nga mooy réew mi nga xam ne fa la doomu aadama di gën a guddee fan tey ci kaw suuf soo fa demee dañu set mhm. set wecc réew moo dem nit ñi gàtt fan su mel ni ay Sénégal dañ salte président de la république ci boppam wax na ko nee na ñun dañoo salte te salte boobu fu mu gën a garaawee mooy si ay marché te ñun sunu marché yi léegi-léegi rek Xaadim Jóob Euh, chevillard toog na fi wax ko ñun tey nee naa ni ñuy jaaye yàpp mm-hmm. mais jaaduwul légumes yi ba ngay ñëw fekk koo xam ni mi ngi jël légume am lal benn toile jël légumes yi si suuf si jël légumes yi teg jël jaxatu yi teg euh, puloox yi teg jël euh, da nga am carottes yi teg nii jël ñàmbi yi tege na le jël. Euh, dégg nga te loolu ministère bu yor santé da cee am wàll bu baax a baax xam nga ñun nañ ko wax te dee dafa neexul nag mais ñun ñoo nakaree defar sénégalais dafa neexut a defar gis nga HLM euh, ah, bañ koy def marché HLM ba muy nekk marché. dafa fekkoon euh, marché je pense marché ngelaw voilà moom moo lakkoon ba mu lakkee ñu ne léegi jaaykatu légumes yi pour waa pour waa HLM am fu ñu jaayee ñu ne leen ko yóbbu ñoom ñu nekk fan attendant de au départ c'était juste pour ça ñu dem ba mujj ñu ñii di tabax ay cantine ñii di daaj ay table ñii di def li def li ba léegi mu nekk nag marché boo xam ne ne nit booy dox doo am sa foo jaar ñi fa dëkk tey bu ñu amee euh, ay dëj ay xew doo xam wala nga am urgence doo xam sa sa malade fan nga koy jaaxale te euh, à la base c'était pas pour ça c'était juste juste léegi mu dem ba nga xam ne ni ëpp na leen loxo ba pare lu ci gën a gaaw ñoom dañuy wax naan ay marchand yi marchand yi ñu am ci ñoom dañ ci am part de responsabilité bu rëy boo nee lii c'est temporaire après ñoom da nga leen di utal feneen fu ñu nekk ne leen hé lii kat dañoo newoon ni c'est temporaire léegi defar nañ fii kaay leen ngeen ñëw foofu noonu euh, mais mais marché nana gis nga tey foo mënti dem nga jël benn promoteur nga jox ko suuf nga jox ko par exemple 10 hectares moom suy defar de masse buy defar plan bi nga xam ne nit ñi fa la ñu war a dëkkee li mu war a njëkk a dagg marché da see bokk marché boobu nekk aux norme cantine ñu xool nan lañ leen di disposer ñiy jaay yàpp fan la ñuy nekk ñiy jaay jën fan la ñuy nekk ñiy jaay légume fan la ñuy nekk euh, euh, maanaam ndox yi fan lay jaar ngelaw yi ñu fexe ba poussière bi bañ a ñëw soxatoo euh, ndugg yeeg yàpp yeeg jën yi mais tey da ngay gis benn promoteur da ngay dem fii ay Kër Massar nga gis projet boo xam ne waaye ji dafa jël rek ñoom jox nañ ko dis hectares mu jël yëpp dagg 150 mètres carrés mhm. ñëw jox léegi nga ñëw dëkk après nit ñi foog ñu lekk mhm. foog ñu dem marché ñu ñëw rek ñoom tam jël benn place rek teg noonu muy marché benn benn njaaxum beneen njaaxum keroog nee naa dégg nañ ko fii euh, benn tata di njëkkanteeg autoraay bi ba autoraay bi mbëkk mais autoraay bi boo ñëwee caaro yi si kaw marché bi la nit ñi nit ñi nit ñi si autorail bi lañ def si raay bi mhm. mhm. fa lañ def marché mhm. waaw mais loolu nu ñu koy lijjante doy na waa daal en tout cas peut-être lu ci gën a lu ci gën a doy waa mooy kenn rek mooy toog après ne xaritam kaay nga toog sama wet après ñuy defante noonu ba faf yàlla mu nekk marché moom moo tax nag dafa li ngay wax nii suñu autorité yi tamit dañu war a am dañ ci war a impliqué waaw dañu war a am fulla ak fayda am na loo xam ni kenn du ko nangu parce que mbir mi yow léeg-léeg tey mun nga bàyyi loo xam ne bu ëllëgee mi ñëpp lay lor nga tunga marché bu ñu ko defaraatoon yaakaar naa banditisme sax dina wàññeeku parce que boo xoolee woy yu bëri naankatu sàngara quinze man ñu ci bëri fa la ñuy fanaan te keroog maa ngi waxtaan ak benn maire mu ne ma ñun soxna si fii li ñuy daj ñu ñun rek ñoo ko xam da ngay denc say légumes ñëw fekk ñu sàcc ko da ngay obligé léegi des fois booy wàcc nga jël say légumes yóbbaale ko mu ne ma des nga ñëw xëy si 6 heures du matin yow yaa yee kenn nekk jugal mu 15 à 15 ba du xam fan lay nekk insécurité boobu fa la ñuy fa la ñuy fanaan léegi yow bu dee yow da nga dëkk à ci côté marché nga xëy nga yónni sa doom guddi lu nekk mën na cee am donc loolu noonu yëpp nit ñi dañ cee war a bàyyi xel bu baax euh, par exemple boo demee ay euh, da ngay ñëw par exemple ñu bi Euh, mu ngi ubbi diggante huit heures si suba ba six heures si ngoon mhm. soo ñëwee léeg-léeg six heures moins dix ni da ngay jënd commerçant bi dafa naan du ma la jaay bien nga ni ko mais yow euh, marché waragul tëj mu ne la waaw mais man damay tëj parce que six heures une minute bu jotee commerçant bi dañ koy teg ay daan yoo xam ne mhm. mooy ëpp foofu li mu la naroon jaay mhm. boo demee Burkina Faso ñoom 18 heures bu jotee marché yi ñëpp ay génn armée bi ñëw fanaan si biir marché ñoom ah foowuñ ko parce que marché comme li nga wax euh, foo xam ni la soo ko bàyyiwul xel rek bandi yi dañ fay dëkk saay-saay si dëkk fa def katu nakul sudul noonu dëkk fa te ñun Sénégal suñ réew mi nana neexu la wax de. Mm-hmm. mais réew mi ko war a bu baax a baax te lu ci gën a gaaw c'est que euh, Tunkara euh, sànq tey maa lu ci gën a gaaw parce que man marché moom pour man booy wax à chaque fois affaire day gën a empirer wu gis nga. état peut être dañoo jàpp ni marché kii la concerne wala kii la concerne mais ma pour ma ministère yi ko war a ëmb moo bëri tey environnement war na war na ko santé économie ki yor emploi ministère yi ëmb marché ci boppam ñoo bëri donc ñoom ñi bu ñu nëkkaloo woon taxaw ne eh, lii kat dafay dagg kon dafay dagg par force parce que am na décision yoo xam ne man ci pour man ci autorité yi kese mairie sax mënu ci dara ah pour man ci autorité yi kese la mën a jógee bon nanaa xam naa yow euh, da ngay dem marché lu bëri yéen xale jigéen da ngeen bëgg marché nag ah waaw nu ñuy def waaw xam naa nag da ngay fu mu toll nii tax ngay wax ni mooy korite gi yaa ngi waajal dem marché jënd dugg non man en waxuma sax pour korite beeg ñoom seen moom ku ma ma nawet moom mënuma ko dugg marché man foofu noonu laay waxee nawet bee ngi ñëw nit ñi du kenn fu xale jigéen ñëpp toggukat yëpp seen bopp dafa ubbu parce que booy dem da ngay obligé sol ay bot yoo xam ne dalay toll ba sa oom yi tout simplement marché bi dafay salte tunkara hmm. boo demee fi ñuy jaayee euh, légumes ay poco poco nga fay fekk des fois ndoxu douce di fa ball hmm. xam nga yooyu noonu tamit da ngay waaru hmm. moo tax man daal côté boobu laa pas sax pour ay korite ak ñoom seen mais surtout ak nawet bi di ñëw ñu jàppale ñu ci xool nan la ñuy fexe ba assainir affaire yi daal mu baax waaw mais euh, surtout nag yéen boo leen demee foofu euh, ay korite yi saay saay dañ leen di tafu waaw moom kay moom loolu moom mi ngi fépp moom ci oto yeeg euh, ci mbedd meek fépp saay-saay heure bi seen événement la. Euh, léegi nee naa tey euh, lan ngay jàngale bi lan lay doon. waaw comme Tunkara ni ma ko waxee sànq déjà ñoom nañu sóoraale àqu dëkkandoo. Hmm. gis nga tey Sénégal pour ñu ne la da nga soxor dafay gaaw. te ñoom ñoo lay tooñ lu ci bëri tey ñëw fekk buntu kër boo xam ne am na espace bu tuuti rek nga jël sa dara teg fa di jaay jékki-jékki sa mbokk ñëw bu ko kooku génnee di wax nga ne dafa soxor ŋàññi ko ba am na ci ñoo xam ne daleen di jaxal sax ñuy dem ci ay sëriñ yu kenn xamul yooyu moo fi war a dagg àqu dëkkandoo dafa am marché HLM foofu li habitants yi di dundee dafa am métti tunkara hmm. métti no trop parce que moom sa koñ moom sa kër te amoo ci droit loolu tamit kenn xamul lu muy ndool beneen aussi mooy autorité yi ñu jug ci nañu dëgër pire gis nga Tounkara tey bu ñu xëyee ne marché euh, Sandaga dañ koy daaneel marché ba nekk ca Saint-Louis marché bi nekk HLM marché dañ koy toj carrément yéen ñëpp fee ngeen jëm ku bëgg jënd dina leen fekk fi ngeen nekk loolu amul sax wax maa xam nga la laay bañ kuy taxaw ci télé bi naan waaw bu ñu nekkee fekk kenn duñu fa fekk ak champ de course yóbbu nañu waaye gisuñu bu ñu jëloon ñëpp yóbbandoo champ de course na nana ay dara bu soxlaa day dem champ de course par force même chose donc ñoom ñoo war a jël ne taxaw ne hé lii dañ koy daaneel bés bii yéen ñëpp yóbbu nañ leen fee fi ñu nekk tamit ñu organiser ko fexe ba mu set mu am ay toilettes yu baax marché bi kenn du saw ci ay wetu fu ñuy toggee ah, fu ñuy jaayee ñoom seen moom yow yow doo si dem de. yàlla tere ñoom ñoom ñu fa nekk sax ku ci am solution sa des fois da ngay àbb sa sa dëkkandoo doucham pour nga dem fa doo bëgg dugg sa toilette marché parce que marché ñu bëgg lu baax a ngi fa mu toilette marché da ngay waa Tounkara man kay toilette marché yi moom dëgg-dëgg euh, loolu daal xam nga nana man li ma si jàpp rek mooy suñu réew mi dañ koo tàmmaleegul defar parce que defar léeg si yooyu lañ koy nattee keroog benn kilifa daf ma ni mu ne ma gis nga nit léeg-léeg yow soo bëggee xam ndegam set na wala setul rek xoolal demal si douche am. dëgg la ma xool tey foo dem si muy muy marché wala muy centre culturel walla muy euh, centre sociaux yi ñuy jànge saa yoo demee léegi da ngay gis ni douche yi moom euh, maa subaana ma làmmañ euh, ñun nag dëgg-dëgg loolu moom ñu ngi si woo kilifa yi. Euh, maire yi ministère de l'environnement waa direction de la protection civile ñoo ñëpp euh, ñu bay waar parce que marché su baaxul moom ñun suñu dund mënta baax parce que li nekk ci marché yi rek moom moo nekk suñu mm-hmm. biir yi te li nekk suñu biir yi moom mooy wane suñu wér-gu-yaram te suñu wér-gu-yaram googu dafay lëkkaloo ak gudd fan wala gàtt fan mbokk yi tey suñu taaw seetlu ñu ngi si ànd ak Amadou Koundoul Amadou Koundoul moom moo yore kàddu waa association des jeunes pour le développement de Mermoz Sacré-Cœur maanaam ay ndaw lañ yoo xam ne daal ñu ngi dëkk te Mermoz Sacré-Cœur ne foofu il faut mu suqaliku Amadou di la nuyu la dalal la ziar. ñu ngi lay fay euh, grand Tounkara. waa Mermoz Sacré-Cœur yëpp di leen euh, di leen ziar. sama mm-hmm. mag euh, Ndeye Binta Gassama. Mm-hmm. di ko ziar yow Amadou. Mm-hmm. association bi depuis kañ la. association bi grand Tounkara boo ñu may ñu présenté ko. association des jeunes de Mermoz Sacré-Cœur bañ ko mettre sur place euh, boobu ak léegi mat na deux semaines. deux semaines deux semaines deux semaines lañ ko teg. sur place waaw. waaye Amadou deux semaines rek nga bëgg ñëw commencé ñëw télé di wax. waaw mais xam nga nous sommes dañoo ambitieux quoi dañoo am ay ambition yoo xam ne looloo tax ba nga bañ la gisee ñu ñu contacté la ndax association des jeunes pour le développement de Mermoz Sacré-Cœur daa englobé tous les jeunes de de Mermoz Sacré-Cœur. ñaata ñaata jeunes si boppam toll. instant bi am nañ cinquante adhérents. te ñu ngi donc donc te instant bi tëjaguñ suñuy bunt. deux semaines lañ ibbeegum yaatal nañ ko léegi ci mbir mu sagar kër yëpp yow sax si nga bokk ndax mbir mu sagar kër nga dëkk léegi yow euh, kon defagu leen dara di def nañ dara def ndax ci deux semaines yàlla dimbali nañu weeru koor lañ nekk euh, on a organisé deux ndogu benn bi ci VDN bi benn bi ci esplanade entre Sicap Mer euh, Baobab ak Amitié 3. kan moo ko financé. suñuy bonne volonté yi ñu am nag. ndax ku mel ku mel ni yow bu ñu ko bindee lettre ak keneen ku mel ni madame Juliette ak yenn bonne volonté yoo xam ne ñu ngi ci biir commune bi comme day Binta Gassama gi nga wax ak ñeneen ak ñeneen euh, suñu papa euh, Ousmane Tanor Dieng ñu bëri ñoo xam ne xam nañ leen ci réew mi bañ leen sollicité ay defal leen ay demande de lettre dañ ñu jàppale ci affaire bi. mais léegi budget bi yëpp ñaata la woon. budget wu kii bi. ndogu bi budget ndogu bi ça tourne aux alentours de cinq cent quatre vingt euh, dix mille. cinq ngeen def ko say ndogu. waaw mais léegi loolu yaa xaalis la. non du yaa xaalis ndax ñun ndogu bu ñu ko comme nit ñi di organiser ndogu. di jël euh, café rek joxe mu jeex noo ñun dañoo gis ne par exemple ku mel ni mouvement bu mel ni waa Marmite du Cœur ni ñuy defee ndogu ñun ça nous intéresse te bëgg nañ ko indi lan ngeen def yéen moom laa lay wax te bëgg nañ koo def si ba ñëwee organiser nañ ay ndog jox nit ñi ñu xewlu bañ jullee gee ba pare ñu tegaat fa ay reer bañ ci pare deuxième jour bi ñu dem si jumaa yi nekk ci euh, Baobab ak Amitié 3 yëpp yóbbu fa ay xewal te ñu ngi nii samedi bi on a visage d'aller fële au niveau de Sacré-Cœur defaat fa même chose bon léegi yéen juddu ngeen Mm-hmm. weeru koor jot si weeru koor ngeen juddu mm-hmm. ngeen dem maajaal xaalis mm-hmm. ñëw joxe ndogu waaw mais loolu nan la mën a développer Mermoz Sacré-Cœur waaw mën na développer Mermoz Sacré-Cœur dans la mesure où benn tunkara bu xëyee waroon a defar ndogu à hauteur de 1500 francs nga épargnel ko ko donc 1500 francs yooyu bénéfice la si moom am na feneen fu xaj te yeguñ ci loolu ndax weeru koor lañ nekk moo dañu commencé action yoo a mettre en place war cee gën a mën a liggéey bu ko defee gën a joxle suñu am ngeen plan d'action am nañ plan d'action ñu ngi koy ñu ngi ciy réfléchir ci lañ bokk yow mii sax du ñàkk dinañ la seet sa kër ndax kon ko ci commune ba nga dëkk bu ko defee yow say idée dinañu jariñ kon amagu leen plan rek yaa ngi di réfléchir ci plan d'action réfléchir ci plan d'action moo tax ma yow sax affaire bu taxawee rek. Mhm. dañ koy dérouler. commencé nañ dérouler moo tax ñu def. mais am plan d'action bi pareegul def nañ def nañ weeru koor bi léegi nag balaa balaa weeru koor bee jeex ñun dinañ waxtaan suñu biir. waxtaan yéen mhm. lan ngeen a def loo xam ni da koy suqali. waaw par exemple li ñu war a mën a def te yu koy suqali te ñu ngi koy envisager ci vacances bu ñu ci amee aide yenn partenaires yi par exemple mën nañ gis yenn écoles yu nekkoon en état de délabrement ñu dem réfectionné ko loolu action de développement la. réflexion école ak lan. waaw euh, bu vacances yi jotee. école yi mère moo sacré que dañ délabré. am na si yenn. comme ban am na ci yenn yoo xam ne seen toilette yi demeewul noonu. comme ban comme bi nekk euh, Nafissatou Niang bi nga xam ne suñu koñ côté koñ la dëkkee. mën na ko Nafissatou Niang foofu toilette yi baaxul. waaw non tane na nii rek. tane na nii dem ngeen ko xool ko dem nañ ba xool ndax côté boobu lañ dëkkee. Nafissatou Niang nag dëgg dëgg moom. jigéen la bu mënoon góor boo xam yàlla na ko suñu borom dooli leer école bu ñu ko tuddee. Mhm. war nañ ko gën toppatoo mais école ba dëgg moom euh, jàppandeegul bon. léegi réflexion école ak lan. après dinañ bëgg nañoo organiser benn camp de vacances euh, ci vacances yi ndax man mi doxee moniteur la ak euh, ñu bëri ñu nekk ci association ay moniteurs des collectivités éducatives lañ. Nafissatou Niang xam nga livre bi mu bind. Nafissatou Niang gësooguma ko nag. ay. yaa ngi dëkk wetu école Nafissatou Niang. Nafissatou Niang bind téere bu bu mais li war a loolu kundul mais Sénégal a demee noonu Tunkara yow maa ngi dëkk na wetu Nafi Satou Niang école Nafi Satou Niang est-ce que sax biir école Nafi Satou Niang am na œuvre Nafi Satou Niang ngi koy jàngale au programme loolu tamit question la du man Nafi Satou Niang bu daw yaram la bind tuddee ko de Tilène au plateau noonu livre tudd waaw livre bu neex vraiment. mooy li ma la wax kon dinaa la si nga jox ma ci livre ma lire ko. non non da ngay dem ko. déet yow laay seet si yow nee naa la yow suñu si suñu bailleur. non non non Amadou moom dañ koy jënd comme ça Nafissatou Niang li mu fi bàyyi ay droit d'auteur am yokk waa waa famille am mën si gën a jàppale. bon Amadou yow tey. Mhm. Euh, da di liggéey ak maire yi. waaw waaw xam nga ñun euh, en même temps si ñun association bi am na si yenn euh, nit ñoo xam ne ay agent kii lañ municipal lañ ko dañuy liggéey ci biir mairie bi donc ñun ba ñuy def suñu ndogu defoon nañ procédure normale mooy sollicité nañ la monsieur maire. jox na leen xaalis ba ñu ko sollicité daf ñu mettre en rapport avec le président commission jeunesse am la ñu boole. donc président commission jeunesse am bi il n'a pas voulu recevoir donc on a bien compris ñun ñu continuer suñu activité ne ko yàlla baax na. maire wax ngeen ak moom. gis nañ ko man mi di wax ak yow chaque jour maag maire ñooy nekk. xam nañ maire xam na ni xam nañ bu xam na bu baax xam na association bi. na ni waa ji daf leen bañoon recevoir. wax nañ bon euh, léegi commune bi foofu. Mhm. yéen euh, li ngeen nar a def rek mooy réfection école. waaw ak nga ni. ak camp de vacances camp de vacances. waaw ci la ñuy nekkagum nii di xalaat. bon tey sa message tan la Amadou. waa sama message euh, lenn la mooy di woo jeunesse su Mermoz Sacré-Cœur yëpp autour de l' essentiel c'est le développement de la commune qui nous intéresse donc association ibbi nañ ko quartier bu nekk biir Mermoz Sacré-Cœur am na adhérent bu fa nekk wala ñaar wala ñett fa dëkk. muy Mermoz Amitié Karak Baobab quartier yëpp am nañ ko fa nekk di ibbi suñuy loxo pour ñëpp keneen ku ci gis sa bopp ci li ñuy def nii nit ñi ibbi nañ la bunt yi mën nga contacter suñu président mooy Charles Patrick Talon. bon euh, léegi euh, est-ce que politiciens ñu leen récupérer. non ce mouvement est apolitique ndax bu doon politique la rek instant bi am na yeneen branche yu ñu jël ndax man mi dox yow ku ma xam-xam ne maak Barth ñoo daan ànd ak Juliette Zenga Charles Talon mooy doomu Juliette Zenga te Juliette Zenga mooy directrice de cabinet bu Barth. Euh, madame Gassama moom ngay wax bu doon politique la duñ ko jege ndax mu APR la bokk te ñeene euh, connotation socialiste la ñu donc ñun dañoo yaatal suñu base développement moo ñu intéressé. suba yow boo nekkoon monsieur le maire ñu ndokk sa ginnaaw di liggéey yéen nanguwu leen tey euh, nanguwu leen. politiciens yi leen récupérer. non non non nanguwuñu récupération politique mais politicien bu ci am xaalisam mun ñu koo jox pour le développement de la cité. Ah, mais mais mais ah mais su ma su ma développement commune ma teg benn projet ne par exemple réflexion euh, école Barthélemy Diaz gis ne lii saa ça ça saa l'intéresse mu ne teg naa table cinq cent mille dañ koy jël association bi soo ko doon xaalis ngay jël dem defari boo ko defaree euh, yokk sa ora aywa léegi yow looy jeexale waaw li may jeexale mooy gërëm ñëpp ñu jàppoon ci ndog yi ñu organisé woon surtout surtout surtout. surtout Amadou ñu ngi leen di xaar nag. Uh-huh. yéen fi lekk. Euh, xool seen ay réalisation war ngeen am plan d'action incha allah ah boo xam ni da ngeen koy tëral mhm. ba pare surtout ay action mhm. bañ a communiquer ci ay mbébét bañ a mhm. communiquer ci ay bëgg nañ def lii mais communiquer ci ay action yoo xam ni def nañ ko yu concrète yoo xam ni mën nañ ci ñëw teg loxo parce que ñun euh, xam nga commune boobu mooy commune bi gën a tuuti ci Dakar à mooy commune bi gën a ndaw après tegu ci commune boobu xam nga kon commune bi defar ko warul compliqué trop mais gis nañ tey jardin bi foofu gis ni mu mel jardin bi kenn xamul lan la mm-hmm. xale yi dañ fay toog di tox yamba euh, jardin bi dañ fay tuur mbalit mm-hmm. loolu rek kenn mënu ko defar yow kay exemple sa buntu kër yow fi mu nekk jardin boobu dafa dem yàqu ba léegi terrain football la mu jëloon ah mais loolu la moom la léegi léegi jardin yooyu yooyu dañ si war a c'est-à-dire ñun suñu suñu ay euh, euh, lu tax seen li ngeen def am solo mooy ñun sunuy commune mm-hmm. ak suñuy koñ engagé wuñ si kenn ku nekk yaa ngi sa biir kër dem liggéey ñëw gaare sa oto jàpp sa ñaamur mm. mais loolu loolu mënu mënu dox gis nga loolu nag il faut nag ngeen jóg yéen tam dem gisi bu mm-hmm. affaire bañ a nekk affaire mm-hmm. mm-hmm. yi ngeen dem woo mag ñi ne leen hey kaale ñu liggéeyandoo soxlawuñu rek ngeen ñëw joxe xaalis mais dañu bëgg sur le terrain tamit ngeen wàcc ñuy toppatoo koñ bi si wàllum surtout set koñ bi setul c'est pas normal surtout surtout ku mel ni euh, Mermoz Sacré-Cœur. mais mm-hmm. loolu defar ko yomb na. suñu maire yi dañu aayule. Mm-hmm. wax la ñuy gën def ak politique. mais jànguñu euh, jànguñu tey gestion collectivité locale jànguñu management public. Mm-hmm. te résultat yi vraiment ñun kontaan na guñ de waaw yàlla baax na yàlla baax na dinañ ci taxaw. comme yàlla bu mu baaxee nag. yow juddoo xam nga bu baax ni ko gune gi yàlla. yow yow ku mel ni yow comme li nga wax ni idées yi yooyu lañ soxla moo tax ñun dinañ jël suñuy tànk seeti mag ñu mel ni yéen ci commune bi nga xam ne ils sont apolitiques taay idées idées de développement la ñu yor ñu seeti leen ñu jox seen i plan d'action yoo xam ne dina jëmale commune bi. man benn affaire bu ma yitteel man bu ma yow dinaa ñëw sa kër ñëw affaire bu ma yitteel. mooy la mooy affaire set. waaw affaire salubrité. Hmm. tey Amadou. Hmm. mun ngeen def par exemple koñ bu nekk. Hmm. mu am ñaari jeunes yoo xam ni le matin dañuy romb dañuy romb si koñ bi yëpp yor seeni saaku mm, ramasser mbalit bu ñu gis mm. mbuus bu ñu gis euh, butéel bu ñu gis ñu ramasser dugal si euh, kees dugal si seen saaku sànni mun nañ def ay barigo mm. jël jënd benn barigo dagg ko si digg bi teg si bopp koñ yi koñ yi am ñu mën a def fenn mbalit mais nag euh, loolu defoon nañ ko mais malheur à nous mooy ferrailleurs yi ñoo jël affaire yi te boo xoolee ci VDN nañ jël matukaay boo xoolee ci VDN teg nañ fa ay poubelles yëpp foo VDN gis naa ko voilà mais léegi nañ jël matukaay Amadou waaw tey ferrailleurs yi mhm. gënuñu ñu muus xam nga mhm. xam nga ñoo ñëw di ñu sàcc ñun mënuñu gën a muus ñun tey mun nañ jël ay matukaay jël affaire yi mhm. chaîné ko kànnaar ko caabi lawbe ko ba benn ferrailleur du ko mun sàcc loolu mun nañu ko def. début de solution la dinañ ci xalaat. bon loolu euh, xale yi bu ñu ñëwee le matin ñu jaar si koñ bi l' après midi ñu jaar gis nga loolu bu ñu ko defee un mois day gis koñ yi dafay set. waaw waaw kay fi nga waxee noonu sax gis naa ci benn idée ndax par exemple boo jëlee quartier bu mel ni Baobab hmm. temps yi defoon nañ benn set boo seetloo seen quartier bi dañu ko peinture vert teg ci pot lampe yi ay euh, panier pour nit ñi di ko seet sax xam nga quartier boobu moo jël de son propre def loolu. waaw su amitié 3 defoon noonu karak def noonu bu yàggee même mu sagar kër set. loolu dama si ànd mais xawlal léeg-léeg dafay am koo xam ni mi ngi nelaw. il faut ñu yee ko. waaw waaw yéen yéen tey. Mhm. lii dafa am solo amul li ngeen def mooy ay jeunes. Mhm. toog ne ñun dañu am doole. Mhm. am nañ xalaat yu bees. mais du ñu toog rek di naan ataay di xiim di seetaan ay Messi ay Ronaldo di nelaw 3 heures du matin di yeewu 2 heures loolu duñ ko def. Mhm. ñun dañuy participer ci kii bi léegi nag. ñun mhm. parce que si koñ yëpp. Mhm. jeunes yi ñoo ëpp mag ñi donc faut jeunes yi dem ci mag ñi comme mag ñi dematuñu si jeunes yi. léegi ñun nañ dem si ci mag ñi ne leen nag bu leen toog. kaay leen ñu liggéeyandoo ko. ñu leen fi xaar de incha allah te yow dëwën bu soobee yàlla na nga ñëwaat toog fii. bu ñu fi yàlla bàyyee. nga mm-hmm. jox ñu say résultat yow incha allah au sortir de cette émission maag yow dañuy toog ñu teg balaa d'action léegi bu ko defee déwén balaa ñoo ñëwaat ci émission bi incha allah dinañ la présenter ne la lii ak lii lañu def nga wax incha allah plan d'action teg suñ toogee mais ñu teg ñun ay baraada kaas incha allah xiim xiim yi dul jeex incha allah aywa même ma gërëm tuuti nag koy gërëm ah du ma gërëm ñi jàppale ci sunu sunu ndog li léegi déedéet fii man maay man maay gërëm ñëpp ah dinaa gërëm maa ngi gërëm Juliette Zenga eh. Juliette Zenga jàpp na ci combat bu baax non mais Juliette la ñu jox gërëm la ñu jox jox ñu matériel am jox ñu otoom ne ñu ndogalu lu mu laaj ma def ko présenté ñu bépp bonne volonté bu mu xam. monsieur le maire nekkoon nag ñu ngi koy xaar commune am nekk ay jeune donc nañu jàpp non maire ñoom bu ñu leen xaar parce que mais ñoom dañuy politique Amadou. day politique mais c'est maire c'est maire il a l'obligation d'aider les associations. waaw mais ñoom association bi day jublu ci loo xam ne da koy jëmale kanam moom. ndax tey association bi comme li nga a loolu xam nga moom mooy li jaadu. mais ñun suñu meer yi dañuy politique nañ leen bàyyi seen politique ñun ñu liggéey. te delloo njukkal suñu ay euh, technicien ñoom euh, moo Gisee Babacar Ndiaye Roxee Daba Mbodj euh, Petit Dia ñoom Tafa Sow ak ndeyaada Ba ñoom Mbagnick njaay sunu ñawkat Lamine Gueye fii ci usine benn tali yéen yi nga xam ni yaa ngeen ñuy bàyyi xel si àdduna bi yëpp ñoom satu ndaw bëgg marché wala ca Kaolack. yéen ñëpp dig daje ëllëg bu soobee yàlla wasalaam